di leen nuyu yéen nekk sa tur ak sa sant ak sa waaye ana Jules les partis donc maa ngi maa ngi doon wax ni maa ngi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant ak itam sa taxawaay ci kër gi ndaxte kër gi euh, famille la kenn ci famille bi moo ñu indil ndam tey ndam bi doon ndamu immédiat mais doon itam ndamu famille de la presse loolu moo tax suñu confrères yi ak suñu consœurs yi nga xamante ni ñu ngi si yeneen këru liggéeyukaay ñu ngi fii suñu wet def ko seen yëfu bopp ndaxte seen yëfu bopp la waaye titre championne d'Afrique bi Adama Anouchka Ba am yëkkati ndamu Sénégal ndaxte Sénégal mooy champion d'Afrique tey à travers la télévision comme ni Sadio maane et sa bande ci njiitalu Aliou Cissé nekkee champion d'Afrique tey ci wàllu football donc loolu du lu tuuti mais mu ñëw rek confirmer li nga xamante ni fala doore bu leen fàttani Mamadou defe naa site bi nekk taaw <laughs> noonu laa koy woowee eMedia point sn moo njëkk a indi ndam ci kër gi ci benn reportage bu nga xamante ni defe naa su ma juumul ñoom lan la euh, ak ban photographe la àndaloon euh, Silla Pape duudu Pape Doudou ci boppam ci wàllu photographie itam ngeen gis ko ñu cité ko ci bi ñuy ci couverture élection présidentielle bi des confrères à l'étranger reprendre ay photo yoo xamante ni def na ko Silla donc àndoon ak Lalla ci benn reportage bi ñu defoon ci jafe-jafe dundin bi dans le nord du pays ay confrères donc un tribunal des pairs sargal leen donc sargal mi yeneen trophée ñëw ci ñoom Aliou Diouf bu ma juumee n'hésitez pas parce que il s'agit d'être exhaustif ndaxte liggéey boo koy def c'est important ñu reconnaître ko surtout quand ça vient des pairs barki démb Pape Alioune Sarr Pape Ibrahima Ndiaye aadama mi ci boppam ñu sargal leen itam ak Seeku Seydi ñu sargal leen Euh, vraiment, complétez-moi, parce que je veux citer tout le monde, c'est très important. Euh, Seigne Dem Euh, ñu sargal leen ku ci nekk vraiment ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy def mais ñu sargal leen itam pas forcément mu am un trophée wala médaille mais ci reconnaissance publique bi bi ñuy seetaan di ñu déglu di ñu jàng euh, à travers des couvertures yi nga xamante ni yu am solo def nañ ko fii ci réew mi ñëpp teg ci seen bët. mooy ci wàllu diine bi mooy ci wàllu aada bi muy ci wàllu sport mbarki démb kaan bi kaan bi il faut le dire comme élection présidentielle bi ñu weesu immédiat indi fi loo xamante ni amul woon en tout cas c'était pas assez développé mooy couverture à travers les organes classiques les médias classiques mais couverture à travers le digital infographie gis nañ fi sax suñu infographie yoo yi nga xamante ni yi ñu doon def ñu reprendre ko comme si euh, ñi ko reprendre ñoom ñoo ko moom mais loolu loolu loolu loolu bu mu indi euh, coow au contraire dañ ci war a kontaan parce que save veut dire que e dafa ñëw di xëcc affaire bi mu jëm kaw on a le pari de la qualité le pari de la qualité nag yombul dafay metti léeg-léeg euh, mu am ay gàllankoor mais à la fin de la journée ndaxte qualité ñépp ko bëgg les gens vont finir par te suivre dañ lay suivre mais ci loo xamante ni ñu sentir ci yow d'abord yow da nga ko gëm foog nga gëm nga gëm ne itam c'est ça se construira sur la durée ndaxte l'économie de la qualité pour nga yegsi ci dafa am foo war a jaar parfois tu fais même un peu de tout loolu moo waral ngeen xool suñu programme yi léeg-léeg ñu am yenn ouverture yi ci côté populaire bi ci côté people bi ci la bokk mais people de qualité am na people de qualité ndaxte qualité kenn bañu ko ceeb bu neex kan moo ko bañ amul boo ko amee mais loolu dafa dafa ah, séréer yi <laughs> ah bon ça c'est Antoine qui le dit <laughs> bon on va te servir bon plat de ngourbaan là donc donc vraiment la la qualité et comme ni ko Boubacar waxee c'est un de chaîne yow mi journaliste bi bul xeeb ku nekk ci administration bi ndaxte pour nga mën a ñëw jaakaarloog Sénégal yi ngay présente sa journal muy ci rajo walla ci télé wala ci euh, nga génnee sa journal wala sa site Mandiaye bul fàtte ni que ki nekk ci administration bi loxoom mi ngi ci biir chauffeur bi loxoom mi ngi ci biir technicien bi travers sa pluralité quand je parle de technicien loxoom mi ngi ci biir ki lay demal reportage indi ndaxte moom mooy duggi marché boo bëggee ceeb bu neex <laughs> il faut nga dem duggi marché te buy boo duggee marché il faut nga tànn li neex légumes yi ak ñoom seen Ne vous en faites pas, je ne sais pas cuisiner. Hein. J'observe simplement. Donc, chef d'édition bi réalisateur bi monteur bi preneur de son bi euh, Jules bu génnewul matériel bi kenn du génn donc le commercial boo demee nag ba am contenu contenu bi boo bëggee mu jar foog commercial bi dugal ci loxo foog booy dem mission ah madame jaata ak euh, Mati waajal la toppatoo nan ngay demee mission sa billet d'avion euh, kañ lañ koy jënd réservation nangam nangam donc en résumé c'est un travail de chef aadama ngañ wax na léegi loo xamante ni euh, oui oui Adama. je j'étais en de diir ngañ wax na fi lu am solo euh, dafa ne lii nii def ñoo bett def ñoo bett mu doon surprise bu neex waaye li ma ciy teg muy alasan muy Mamadou muy Boubacar Antoine wala xalifa nga xam ne ku ci nekk ci sa loxo lañu teg direction walla rédaction ba ci man mi j'ai toujours dit lépp looy def boole ci fulla ak fayda j'aime bien cette expression wolof dafa mel ni sax moom rekk laa jàpp fulla mooy jaay daxaar te nga nga am ngëm-ngëm que lii ngay def mën nga ci doon leader ah wax naa ko wax naa ko fii ñeneen j'ai lii ngeen di def ci immédiat gëm leen ni vous pouvez être numéro en Afrique man waxuma Sénégal di Sénégal bi c'est tout à fait à la portée don leader en Séné au Sénégal déjà ndam la c'est à notre portée mais don leader en Afrique c'est à notre portée doon leader au niveau international c'est à notre portée bu leen kenn xoqatal bu leen kenn dugal seen bopp complexe d'infériorité donc Alioune Sarr buy def émission am il doit travailler pour être au niveau des standards internationaux mën na ko mu ngi ci kazalika keneen ak keneen ak keneen nañu dépouillé wu de ce complex consistant à dire amul journaliste bu mag bu dul français walla anglais walla américain ce n'est pas vrai ñun ñii suñu jëmm ji ci fii ci réew mi am nañu ay naatangoo tubaab bu ñuy bind seen article dañuy woo billaahi wallaahi ndax moo bi jub na walla jubul ñu nag senegal léeg-léeg il faut le dire la haine de dafa am am na ñoo xamante ni dañu euh, soxor ba dañuy soxor ci sax seen bopp. <laughs> mais je veux dire que le plus important et tey loolu moo ñu dajale c'est d'être positif c'est d'être dans une construction positive bu amee ay sénégalais yuy yëngatu ci suba ci suñu métier comme dans d'autres domaines mais surtout suñu métier puisque moo ñu dajale dajale tey yu am ay doute que mën nañu nekk numéro un au Sénégal en Afrique et dans le monde nañ ko dindi Mamadou Ndiaye mi ngi may signaler léegi la présence de Abdou Ning nekk suñu grand frère maa ngi lay nuyu grand frère Abdou Ning pour yenn xale yi Abdou Ning est un grand journaliste c'est notre aîné il a été directeur général de l'agence de presse sénégalaise tu as dirigé la direction de la communication non non non pourquoi je le cite c'est parce que Abdou Gning moom mooy le président du comité bi am initiative dajale les confrères africains ba ñoom ñoo initier ce prix meilleur présentateur télé rajo ak yeneen euh, médias yi bi nga xamante ni tey jii aadama mii jël na raay bi je ne trahis pas un secret hier bi ma la woowee ñuy waxtaan Abdou ñi nga defa ne gars yi dañu doon xëccoo aadama pour mu toog fa Congo Brazzaville mais xamuñu woon ni ñun ñoo ko gën a soxla et elle-même euh, naturellement elle aime le groupe E-Media, elle aime son pays. Elle sait qu'à partir de E-Media, elle va rayonner à travers le monde, comme nous tous, nous allons rayonner à travers le monde, à partir d'ici. buñ ko gëmee rek dem junj doy na borom xel nañu xool rek suñu référence dans tous les domaines nag xëy na sax en 2022 bu ñu bàccee Égypte moom lay ñaan yàlla je touche du bois dinañu yëkkati la coupe du monde c'est possible pourquoi pas il faut y croire bu nekkul bii mu nekk euh, beneen beneen yoon donc loolu nañ ko gëm bi ci tegu man de li ma leen di wax euh, mooy mooy lenn ñi ma précédé ci kàddu gi wax nañ ko ay ndaw ngeen waaye ndaw du handicap fi ma toog tey li may fàttali man mooy bi may door ci métier bi am ñu téye ci sama loxo di ma tette un moment ñu ne ma doxalal doxalal leen na affaire bi bar y a pas de limite vous êtes des professionnels formés à bonne école bu leen kenn wax ni vous n'êtes pas bien formés parce que aussi c'est ça aujourd'hui l'excuse quoi ah oui léegi affaire bi vraiment na demeetul noonu dangam non non Mamoudou Ibra Kane comme vous avez été formé à la même école Alassane Samba Diop mi Mamadou Ndiaye sous son contrôle donc gëm leen loolu doxal leen avancer leen éclatez-vous amusez-vous. Cet outil est le vôtre. rajo bi télé bi journal bi site bi digital bi. Quand je vois l'équipe digitale mobilisée à chaque fois bu amee une émission bu amee euh, un événement. on inonde les réseaux sociaux te kooku wax naa ko j'ai dit il faut que les journalistes envahissent les réseaux sociaux waxin la waxin bi mooy que ni buñ ko négliger parce que c'est devenu un outil de diffusion la preuve confrère ak consœurs yi fi nekk ma jàkkaarloog ñoom am na ñoo xamante ni ci web TV la investir ci web rajo la ñu investir ci site la ñu investir ñu am seeni page di ko animer lu tax il faut le faire c'est buñ ko deful ñi nga xamante ni defuñu métier bi joxuñu métier bi a xam ñoo koy def la preuve moi j'ai été meurtri vous avez vu des images au stade récemment bi ñu inauguré quelqu'un bu téye micro di interroger quelqu'un mais c'est pas possible est-ce qu'on a le droit de laisser ça passer mais loolu li koy tere mooy ñu engagé wu def suñu liggéey comme ni mu waree mu am une masse critique parce que buñ ko defee rek bu ñu wàccee suñu ànd rek euh, comme ni ñu koy waxee ah, ah absolument donc loolu mooy xew mais ce n'est pas trop tard pour bien faire on peut le rattraper. Mais aussi de lancer un appel au pouvoir public et aux décideurs nañu bàyyi xel ci colo bi nga xamante ni média am na ko amul réew bu développé te àndul ak média amul réew bu am influence euh, dans le monde amul àndul ak média foog ñu dooleel les médias ñu bàyyi di leen à la limite euh, je parlais de haine de soi mais parfois de, la part des pouvoirs publics aussi dañ ñuy néewal doole bon oui bon voilà moi RFI laay dem France 24 CNN laay dem c'est bien il faut y aller on est dans un monde ouvert <laughs> mais bul fàtte d'abord say médias médias yooyu ngay wax ngay tudd mais ay médias yoo xamante ni dañu wéeru ci ay réew ah, grand Lamine Touré je t'avais pas vu mais mes hommages ah mbaa waxuma njaaxum <laughs> donc donc Lamine Touré qui est je disais tout à l'heure qui est également euh, un professeur formateur au CESTI grand journaliste qui a suscité énormément de vocations il y a des gens ils sont nombreux j'en fais partie bu ñu doonee journaliste c'est parce que il y a des gens comme Lamine Touré comme Abdou Gningue comme Mamadou Ndiaye et bien d'autres loo xamante ni qui sont des références donc man pour man foog ñu jox suñu médias yi fulla foog ñu dooleel leen c'est pas parce que un média un journaliste se veut indépendant un média se veut indépendant que waruñu profito ci des conditions yoo xamante ni qui leur permettra permettront pardon de se développer parce que bu développer Sénégal mooy développer Sénégal mooy am influence la preuve regardez aujourd'hui ce qui se passe en Irak euh, en Ukraine c'est d'abord une bataille de communication une bataille médiatique bataille d'opinion si nous ne voulons pas être absents si le président de l'Union africaine veut que sa voix porte, ou le président de la CEDEAO veut que sa porte, foog mu weeru ci ay médias yu am doole. terewul nag journaliste moom liggéeyam rek lay def. liggéey journaliste bàyyi def liggéeyam di def leneen euh, da ngay sonal sa bopp te du nekk njëriñ non seulement. ci sa bopp yow mi mais du nekk njëriñ ci ci ci réew mi ak euh, ci ci suñu continent l'Afrique bi nga xamante ni tey dafa war a gën a peser donc ci gàttal parce que euh, kàddu gi euh, kii na xaw naa xëcc tuuti li ma bëggoon wax rek mooy félicité la Adama félicité mu kuy liggéeyukat fii ci groupe E-Media di wax ne sargal bi sargal la boo xamante ni personnel bi yépp moo ko moom ku nekk ak fi nga nekk ndaxte en trois ans ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko commencé def commencé lay wax ndaxte jeexagul tey gii ñu organiser lu mel nii ay professionnels yi nga xamante ni jàngal nañuy ñëw wuy suñu c'est parce que dañu am ci ñun yaakaar ça veut pas dire qu'on a réussi On n'a pas encore réussi. On a beaucoup de chemin affaire mais am nañ ci ñun yaakaar bu ñu décevoir yaakaar boobu donc jërë ngeen jëf maa ngi leen di ñaanal di leen encourager di leen féliciter di wax itam pour ce qui relève de la direction générale euh, xam nañu suñu part de responsabilité Ngagne nous a il a bien fait direction générale ndamam mooy itam fexe ba mettre le personnel dans des conditions optimales de performance man de mën naa seede ni que personnel groupe E-Media ay nit ñu gore parce que nous avons vécu des moments difficiles que nous sommes en train de vivre encore ñu mel ni train buy dem léeg-léeg nga ñëw ci gaar am ñu wàcc am ñu yéeg ñi dem itam am loo xamante ni lu am solo def nañ ko fii di leen ñaanal ñu réussir ci lu ñuy def ñi nga xamante ni comme je dis le personnel lu tax ma ne ay nit ñu gore ngeen on a vécu des moments difficiles mais vous êtes restés vous avez continué à y croire la pandémie nous a obligés en tant que direction générale à prendre des mesures dures au plan social, mesures qui vous ont impacté personnellement, qui ont impacté vos familles, et vous êtes resté stoïque. loolu fàttewuñ ko mais faites-nous confiance parce que ñu ngi liggéey itam pour que situation bi ñu améliorer ko di sant yàlla nag en touchant du bois bu ngeen dégloo léeg ñu ne la tel entreprise telle autre am na arriéré nangam nangam nangam nangam malgré les difficultés alhamdulilah immédiat on tient parfois affaire yi yéex mu doon lu metti xam nañ ko te xam nañu seen ngor moo tax ngeen taxaw di continuer di liggéey ak yaakaar parce que c'est important yaakaar mais yaakaar la boo xamante ni da ngeen nekk dans une dans un processus de transformation vous ne vous êtes pas dit euh, ëllëg ëllëgu yàlla la c'est vrai kooku c'est une constante kooku suñu borom la kenn mënu si dara mais là où on peut agir et c'est ça votre conviction vous vous êtes vous êtes en train de vous dire l'avenir c'est nous qui allons le construire Le futur nous est imposé, mais l'avenir c'est nous qui allons le construire. loolu te ngeen doon ay ndaw mais c'est extraordinaire Lamine euh, Abdou Ngagne loolu c'est extrêmement important euh, gëm leen loolu et vous allez voir que les choses vont suivre parce que la direction générale seetaanu leen ñu ngi ci liggéey ci wàllu prise en charge médicale nga xamante ni c'est nous vivons cette situation c'est difficile c'est sensible mais ñu ngi ciy liggéey te bu bu ci yàlla ànde soreetul ñu commencé gis ay résultats ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen parce que gars yi wax suñu réew mi booy <laughs> kuy yoddu sëq fi nga bëgg a jëm boo fa bëggee àgg il faut le faire avec beaucoup de discrétion de discrétion d'humilité mais détermination détermination fois engagement et loolu duñ ko bàyyi parce que li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyi te jig na la <laughs> soobe yàlla duñ ko bàyyi jërë ngeen jëf félicitations encore